moo xam day ndoxum géej nag mbaa day ndoxum taw mbaa day ndoxum teen mbaa day ndoxum seyaan mbaa mbaa sax mi galaas gu ñu bàyyi ba mu ruy rek loolu lépp teew koo baax fa in taxayara ndeem soppiku na shay'un dara min aw saafihi ca meloom ya ak talaasati ya di yett bi maa ci la nga xam ne fukki la tuddeef na ko wanax wi ak lu mel ne moom fala yasixu kon du wér alwudu jàppee min hu ci moom walal xuslu du caageenu cangaay walal istinjaaw du caageenu tàncu tàncu moo yóbbu ko ca wana wa dindee ko sobe nee na saa yoo xam ndox ma soppiku na ci couleur mbaa caf ka mbaa xet ci lu mel nii nga xam ne moom ndox amuñu genn jote su boobaa ndox mooma mënta jaamooti yàlla mënta jaamooti yàlla mooy doo ca mën a jàpp doo ca mën a sangu cangaayul farata mbaa loolu sunna ni ki loolu ajjuma mbaa lu ñu sopp ni ki loolu xiit doo ko mën a yóbbu wanag boo yàkkamtee bu la neexee yóbbu ko ci wanaw nag waaye kon na nga fexee ba bala ngaa jaamu yàlla nga awlewaat ndox mel ni mi nga war a jàppee ci kaw cër ba waaye wane su koo yóbbu ci wanag mënoo koo fóot itam yére yoo xam ne daa am sobi suñu mënta julliwaale wala mu ta xayru aji soppikoo nag bi taahiri ci aji laab taahirul aji laab la xayru taxoorin waaye nag du ab laabaa kon yustaamalu def na ko jëfandikoo fil aadaati ci aada ya wala yustaamalu te def ko jëfandikoo fil ibaadaati ci jaamu yàlla yi bu fekkee ndox ma la ko soppi day lu laab ni ki kafe dem ca mbaa diw mbaa soow mbaa attaaya ba nga mën ko caa xàmmee ca ndox ma loola lu laaba ko soppi kon mooma ndox moom mën nañu koo jëfandikoo ci wàllu aada mooy boo bëggee naan boo bëggee togg boo bëggee sangu sangum toilette boo bëggee fóot yére yoo xam ne amul sobe suñu mënta julliwaale yooyu yëpp mën na ko waaye nag doo ko mën a jaamoo yàlla mooy doo ko mën a jàppee doo ko mën a sangoo ca ngaayul jaamu yàlla doo ko mën a yóbbu wanag doo ci mën a fóoti yére yu am sobe suñu mënta julliwaale wala mu taxayur aji soppikoo nag bin najisi ci sobe najisum sobe la laa yustaamalu def ko jëfandikoo fii shay'in ci dara minal aadaati ci aada yi wala fii shay'in du caageenu ci dara minal xibaadaati ci xeeti jaamu yàlla yi nee na bu fekkee nag la soppi ndox ma day sobe mel ne am saw dem ca sawum doomi aadama mbaa sawum mbaam yooyu nga xam ne seen saw sobe la mbaa xayta boo xam ne sobe la mbaa sàngara mbaa deret joo xam ne sobe la yii moom bu fekkee moo soppi ndox ma ba nga mën koo xàmmee ci couleur mbaa caf ka mbaa xet moom ndox moom jeex na tuur rekk ci des xanaa de mënees na koo wëgge ak jur mënees na koo suuxate mbay waaye mëneesu ko jëfandikoo dara ci xeeti jaamu yàlla yi mëneesu ko jëfandikoo ci wàllu aada ni ki naan mbaa togge mbaa sangoo sangu tuwaali sax mbaa dara ndam la ko defoon sax na nga ko raxas bu fekkee bëgg nga koo jëfandikoo wa isa taxayara dem soppikoo na bi maa ci loo xam ne foofu moom min xaraari si tukkee na ci ab saxukaayam kat turaa bi ni ki suuf wala mili ak xorom wa nuure si dañ ko daan firee gàncaxuk nuure waaye nekkul gàncax ak nuuratu dañ koy wax xajarul kilsi doju kils di ko wax itam ay njaxase yoo xam ne dañ daan jaxase xoromi calcium ak bariyoon ba mën a dindi kawar na ne boo bëggee wat ba mën koo dindee kawar loolu moo tudd ak nuuratu aw maa wala ci loo xam ne tawal la da juddoo na min fu ca ndox ma kat tuxlu bi niki mbaalaa mbaal aw bi tool li mukk si wala ci yàgg ko sax ga fa indahu naka moom laa yadurru du lor wa yustaamalu def na ko jëfandikoo fil aadaati ci aada ya wal xibaadaati ak jaamu yàlla ya bu fekkee la soppi ndox ma daal moom neexutoona moytu niki fa ndox may taa mbaa fa ñuy génnee ndox ma ca teen ba mbaa seyaan nga moo xong cooy ba ndox ma xong cooy mbaa moo ñuul kukk ba ndox ma ñuul kukk mbaa ndox mi bu walee fa mu wal aw moo soppi ko ci xeetu xorom mbaa li ñuy wax an nuura mel ne foofa dafa am an nuura mu doji kilsi yooyu ñu waxoon ak mboolem sax xeeti matière yi nga xam ne moom la yàlla lëggee suuf yooyu xeeti matière yooyu bu ñu soppee ndox it du wàññi dara rawante nag suuf suuf moom dañoo jàpp ne moom ndox yàllaa leen boole nga xam ne boo tibboon suuf xëpp ko ci ndox itam du tax ndox ma yàqu xorom it noonu yàllaa ko booleeg ndox moom it moom xorom du yàq ndox su boobaa du wàññi dara bu fekkoon dafa dend ak itam lu mel ne médd ba médd ma xeeñal ko waaye moom laalu ko benn yoon mbaa mu dend ak fu wuute yi defaree si der yi ba tax xet ga naqari mbaa boog loola juddoo ca ndox mi mel ne mbaalaa mbaal mbaa boog ndox mi daal dafa yàgg lool jekki-jekki rek xeeñ waaye kenn la ah dara defu ci kenn defu ci dara daal moom daa jekki-jekki yàggaay bi tax rek mu xeeñ yooyu yëpp moom du ca wàññi dara ndax loxol doomi aadama defu ko te may si ko woon a moytu kon moom ndox na mu soppi ko du tee nga mën koo jaamoo yàlla du tee nga mën koo jëfandikoo ci wàllu aada loo ci bëgg a def rek mën nga ko caa def wa isa waqaxa ndeem tabbi na filmaa yi ca ndox ma alxalil yi may aji néew ka aaniyet li wu dooy niki ndabi njàpp lil mutawaddi i ñal aji jàpp wa aaniyatil xusli ak ndab yi cangaay lil muxtasili ñal aji sangu najaasatun sobe walam tuxa yërfoo te soppiwu ko fa innahu naka moom yasixu dana wér a tatxiiru laabloo wala nga ne laabe bihi ca moom laakin waaye yukrahu def na ko sib isa wu ji da dem amees na xayruhoo mu bokkut ak moom nee na ndox moo xam ne daa yam rekk ci jàpp mbaa mu yam rekk ci sangu ba noppi nag sobe sa ca dem daa néew néew ba nga xam ne soppiwu ko gis nga nga ko gis mu dem ci rek moo la xamal ne moom sobe dem na ci waaye soppiwu ci dara dara moom ndox bu fekkee am nga meneen ñu sib ko bu fekkee amoo meneen kenn du ko sib su boobaa su fekkee mën ngaa meneen ndox moo xam ne dara sobe laalu ko daañu sib mii waaye su fekkee amoo meneen kenn sibu ko te itam sib dong la boo koy jëfandikoo du ko tee baax te li wax sax mooy ndox ma daa néew ndax daa yam ci jàpp ci boo dee jàpp wala mu yam ci sangu ci boo dee sangu ne bu doon ndox mu bari moom tuut soo bi dem ci ki mën ko caa xàmmee kenn du ko sib sax kon kon bu fàttee néew gi ak bari gi bokkuñu àtte wal maaw ndox ma al mustaamalu ma di muñ jëfandikoo fi mu dooy ci njàpp wal xusli ak cangaay taxoorun ab laabaa kon la yukrahu def na sib ak tatxiiru laabe wala laabloo bi ci moom maxawu jooli xëyri yi ànd ak amuk mudul moom ndox moo xam ne ba ca koo koy jàpp da ko doon tiimale mbaa ba muy sangu da ko doon tiimale ci dara ba mu noppee na ñu xool ndox ma dara sikku ja mu mel ne ma nga doon xeele ci robinet ba ndox mel noonu nee na sib nañ ko soo amee meneen soo amul meneen moom baax na soo amul meneen baax na waaye soo amul meneen moom ñu sib ko daa fekk nag njàpp ma nekkoon dëgg-dëgg njàpp nga xam ba ngay jàpp da ngaa toj la woon mbaa cangaay la nekk cangaay lu farata ni ki amee janaaba wala jigéen ji deretam jeex lu mel noonu nga xam ne cangaay la farata la ba muy sangu nag mu tiimale ko bu noppee nag boo xoolee ndox ma mu set wecc ndax daa fekkoon yaramam set moom nag moom ci boppam mu koy jëfandikoo waat mbaa keneen di ko jëfandikoo waat ci njàpp mbaa sangu daal moom sib nañ ko ci kaw nga am meneen sax ne bu fekkee amu meneen moom sib ga du ci am wa fil mustaamali nekk na ci ndox mañ jëfandikoo fii xëy yi ci lu dul loolu kal mustaamali ni ki mañ jëfandikoo fi tabarrudi ci serlu ci yaram rek mooy seral aw yaram wa xuslil jumhati ak calaayal ajuma xawlaani ñaari wax bil karaahati ci sib ga wa xadamiha ak ñàkk sib ga bu fekkee ndox ma ba ca koo koy jàpp mbaa ba mu cee sangu njàpp ma doon njàpp mu toj lee da doon yeesal rek am njàpp mbaa daa fekk rek mu tàng mu ne woon naa jàpp ndax saa yaram sedd mbaa ba mu cee sangu daa fekk ca ngaay lu ca ngaay lu sunna mel na ca ngaay lu ajjuma mbaa ca ngaay lu korite tabaski nga xam ca ngaay lu ñu sopp la yooyu moom neen dañ caa wóote am nañu ne bu fekkee da ko doon tiimale te ba mu noppee boo xoolee doo gis dara soppi ko ca du tee ñu sib ko mel ne ba muy njàpp dëgg-dëgg ak ba muy ca ngaay dëgg-dëgg ñeen ñi ni déedéet ndegam moom njàpp mi doon njàpp tojle cangaay li woon cangaay lu farata kon kenn wërtu sib ndox moomee wax ji gën a wër nag mooy kenn du ko sibati jooju wax lañ sukkandikoo fas lu li ab dog la te wax ci dog bii nag yi nga xam ne ñoo laab ak yi nga xam ne laabuñu ndax ndegam nee nga ndox bu fekkee lu laab moo ko soppi des na ko mën a jëfandikoo ci aada ni ki togg mbaa sango sangu tuwaalit mbaa naan ah bu ko sobee soppee moom wacc tuur rekk ci des kon war naa leeral lan moo laab ak lan moo laabut kullu xayin jëpp aji dund foofu wa moom taahirun aji laab la aadami yen moo xam ne doomi aadama aw xayrahoo mbaa muy ludul moom wa kazalika naka noonu xaraquhoo ñaqam wa wa loxaabuhoo ak loram wa wa muxaatuhoo ak aw ñand xiitam ñand xiitam wa damuhoo ak rongoñam wa bayduhoo ak nenam lépp li dund daal dañuy jàpp ne ko mi ngi dund rek moom laab na moo xam ne doomi aadama moo xam ne leneen ba tey bu ñu nee luy dund laab na ñaq wa bàyyi ko ca moom mbaa lor wa mbaa ñand xiit wa mbaa rongoñ ga yépp ba tey laab na nga xam ne fekkoon ne kenn ci yi moo soppi ndox yi dañuy jàpp ndox ma la ko soppi lu laab la mën nga ko jëfandikoo ci wàllu aada ni ki togge mbaa naan ngi demee noonu xayral masiri ndare nen bu nëpp bi daali ca daal ga al moo jamati ga di guñu tomb waxuma moom al mutaxayiru mooy aji soppi ko ja al muntinu ja aji xeeñ nen moom bu fekkee dem na bu nëpp ba xeeñ moom léegi sobe la fu mu la takk doo ko mën a julliwaale te bu soppee ndox ndox ma yàqu na tuur rek moo ci des bu ñu nee lépp luy dund rek laab na mooy lépp luy dund kon te taqul sobe mën ngay julli yorewaale ko te du tee julli ga baax ba tey nag bu ñu nee ñaq waag ña ndox it yaag lor yaag yépp laab nañu kon bu la taqee nga julliwaale ko du wàññi dara bu soppee ndox itam waxan nañ ko léegi waaye nag jàppal ne loolee kat bu xasee medd te fekk mu am deret joo xam ne boo ko jamee mu sotti ko léegi sobe la doo ko mën a julliwaale ba tey mën nga koo misaale teeñ ci lu gën a gaaw a xam teeñ daa am ñu wax ne amul sax dereti boppam waaye danay naan dereti jaambur kon nag am na deret joo xam ne boo ko jamee mu sotti ko kon bu xasee medd sobe la kon fi mu toll nii teeñ yi nga xam ne mooy dund mën nga koo julliwaale te teeñ yi nga xam ne ñoo dee doo leen mën a julliwaale wala banul aadami yi soom doomi aadama fii xaali xayaati yi ci waxtu dundam nga taahirun aji laab la doomi aadama bu dee dund am soowam laab na li gën a wër sax mooy bu faatoo itam soowam a laab na ndax doomi aadama bu faatoo téewu koo laab kon soow may génn ci moom bu faatoo wax ba gën a wóor ba day laab na xam ne bu la taxoon du aajowoo dindi mën nga koo jëliwaale bu soppi woon ndox it ndox ma dana baax wala banu mu baaxil ak li soowam lu ñu dagana la lekk ba tey taahirun aji laab la kal baqari ni ki nay wal xanami ak gàtt yi wala ibiri ak gëléem yi bu yoon ne nangam day dagan naa lekk mel ni nag wala gàtt yi xar ak béy wala gëléem kon xamal ne am soowam ba tey laab na laab na ci lekk laab na itam ci bu la taqee nga mën koo julliwaale bu soppeem ndox itam soppi ko ne ci lu laab rek mën nga koo togge mbaa naan waaye mënoo koo jaamoo yàlla naka wa kasaalika naka noonu bawluhoo bawluhoo sawam ma war a jiixoo ak neefareem wa maalam yataxadda li feeg du añee dina gisin ci sobe bu ñu nee nangam dagan naa lekk te moom du lekk sobe dañuy jàpp ne kon saw ma laab na ay neefareem laab na mel ne bu ñu nee xar ak béy dagan nañoo lekk xamal ne kon dagam xonti woo leen rek sobe teg ci sa bët joxo leen sobe ñu naan teg ci sa bët dañuy jàpp ne kon seen neefare laab na seen saw ba tey laab na loolu moo tax ñu mën a naan mbéeru mbéeru mooy xar mi saw ñu dékk ko bu jigéen lañ koy ëpp def dékk ko daal koy naan di ko fajoo bu dee lekk bu dee nag luy lekk sobe dana ko wax ci kanam mel ne ganaar wala janax ji ñuul yooyu dañuy aaju dañuy lekk sobe yooyu moom bu fekkee yeewoo leen ci benn béréb bi leen xonteelu laab bàyyi leen rek noonu ñu dem ak a dikk duñ xam ba xam lekk nañu sobeem déet kon su boobaa seen saw ak seen xayta yépp sobe la wala ba nu xëy rihaa soom lu dul ñoom nag taabixun aji topp la li lax mi yi ñeel yàppam wax famaa loo xam ne xaruma araam na ak lu lax mi yi lekk aw yàppam fa la ba nu am soowam naji sum sobe la kal xayli ni ki fas yi wala bixaali ak baxla yi wala xamiri ak mbaam yi wamaa loo xam ne itam kuriha sibeef na ak lu lax mi yi lekk yàppam wa kas sabo yi ni ki ndegment ndegment mooy rab wuy fàdd fala ba nu am soowam makruh lu ñu sib la nee na loo xam ne nag moom dëgganut a lekk yaar la benn mu araama lekk mbaa mu siba lekk bu dee lu araama lekk moom xamal ne am soowam sobe la mel ne fas ak bax la ak mbaam dañoo araama lekk fas am na wuute waaye bu dee ci yoon maal yi moom araam nga lañ jàpp kon su boobaa soow ma sobe lay doon bu la taqee doo ko mën a julliwaale bu soppeem ndox ndox ma sobe ko soppi say boo tuur ko bu dee lu ñu siba lekk nag mel ne muus wala siiru wala beneen deng ment deng ment mooy rab buy fàdd rek yooyu bu dee ci yoon maal dañu ko siba lekk rek mel ne bu doon gaynde wala till yépp rek loo ci xam ne am soowam taq na la dañoo sib rek nga julliwaale ko woo moytatuma meddum loo xam ne laa naf sa dee deret la ñeel ko saa ilat muy aji yol kat dubaa bi ni ki weñ wa nam li ak ay xorondoom wa dóodi ak ay sax taahiratun aji laab la loo xam ne medd na waaye amul deret joo xam ne boo ko jaman mu sotti ko mel ne weñ wala xorondoom wala sax wala aw mbóot wala jiit yu mel noonu moom bu xasee medd itam teewu koo laab laab na nag waaye du laabug lekk ndax bu dee lu ñu sartu ñu rendi ko te rendi wuñ ko des ko mën a lekk mel ni tey boo fekkoon sam soow wala saw ñam kenn ci dee ca tak mën koo seppi faaw da nga koy seppi sànni waaye doo ko sañ a lekkaale laab gi ñuy wax kay mooy laabug bu soppi woon ndox ñu xam ndox mi lu laab rek ko soppi loolu ñu jublu ci googu laab waaye laabug lekk gi nag moom day aajowoo ñu rendi ko moo tax xëy na nga ne waaw aw sax nuñ koy rendee mbaa xorandoom nuñ koy rendee dañ lay wan ne la yooyu moom loo ko def te jublu ci rendi rek mu daal di koy doon mel ne sax bu fekkee sax wa daa juddoo ca doom ba mel ni ki doomu gerte mën ngaa jékki-jékki yéeg ko rek noona te jublu ci rendi ca yéeg nga ko yéeg mu daal doy sëkk waaye boo ko fekkoon mu medd rek noonu nag moom jëmm ja laab na ci boo ko julliwaalee mu nekk ci sa yaram mbaay sa yére du wàññi dara laab na ci bu nekkoon ci ndox ndox ma la ko soppi lu laab la ndegam moo la ko soppi waaye laabul nag laabug lekk loolu aajo woon a teqale foofu bu ñu nee nag laabul laabug lekk nga fekk ko ci saw ñam te neexut a teqaleeg ñam wa mel ne nga fekk ay mbóot yu sew a sew wala ay sangleeñ mu dee ci la nga bëgg a lekk mbaa la nga bëgg a naan bu ñu ko mënee seppi moom ñi nga ko waxee woon faaw da nga koy seppi mu des nag bu fekkee mënees koo teqaleeg ñam wa kon dañuy seet ba xam ku xool ñam wa ak sangaleen yooyee ca daanu ci misaal lu ci ëpp bu fekkee ñam wa ëpp kon saye boo lekk ñam wa te lekkaale sangaleen ya bu fekkee da ngay gam-gam li ba xam ñam wi ëpp mbaa sangaleen ya ëpp ba tey noonu saye boo lekk ñam wa ndax ñam dafa jafe kenn du ko wacc ci kaw sikki sàkk dong bu nu wóor yi nag ne loolee ca dee ni kii sangalee ñi nga wax mu ëpp ñam wa nag su boobaa da nga koy tuur doo ko sañ a lekk faslul li ab dog la maytatul aadami yi néew doomi aadama xayril ambiyaa yi ndara yonante ya najisatun sobe la daa wax ne doomi aadama su xasee faatu léegi sobe la ba mu des na ab yonante ab yonante moom bu faatoo itam teewu ko laab waaye wax ji gën a wóor mooy doomi aadama moom bu xasee faatu itam teewu ko laab na ko yàlla terale woon rek noonu la ko terale ba tey moo tax mu naa waqad xalimta mimma taqaddama anna raajiha taharatuha wa anna alxayaata xalafatha xillatun uxra wa hiya alsharafu fa sharafu alaadamiyi xalafa xillata alxayaati doomi aadama dund kese gi du dong mooy teraangaam yàlla da koo may teraanga ak doomi aadama goo xam ne may wuutu dund ga bu faatoo itam wa kasaaliki ni maytatuma meddum loo xam ne lëxoo ñel na ko nafsun deret saa ilatun judi aji yol kal xamle ci ni ki aw teeñ xalal mashhur ca la ñu siiwee wal borxoosi ak aw fel xinda bunil xasaar yi fa ibnul xasaar bokk na ci sobe yi lépp loo xam ne nii daa medd te fekk mu am deret ju sottiku loo xam ne nii moom amul deret ju sottiku ni ki weñ mbaa xorondoom mbaaw sax moom ne nga woon bu méddee itam laab na lu bokk te loolu na nga xam ne am na deret ju sottiku moom te gis nga ni mu baree ganaar ak xar ak bëy ak yi nga xam yépp te ñu am deret rek buñ xësee médd sobe lañ ba tey lu génne ci ñoom gannaaw bañ méddee moo xam rongoñ la moo xam aw ñaq la moo xam deret la moo xam ab nen la ba tey sobe la wama loo xam ne ubbi na faccaleef na ko dindeef na ko minal xay yi ci aji dund awil mayit wala aji dee mimmaa ca la nga xam ne taxul luhoo dana ko wàcc alxayaatu dund ga kal xarni ni ki béjjéen wal xadni akub yax wal zufri ak we wal juldi akub der ak aw der najisun sobe la ba tey nee na luy dund loo ca dagge rek loo xam ne boo ko di dindi muy metti ci moom loolee boo ko dindee ca moom sobe lay doon na nga moytu lekk loolee mbaa julliwaale ko ak yu demee noonu mel ni xam nga ne béjjën liy dund boo koy dindi ci moom muy metti wala bu yax wala we wala der yooyu yëpp bu dee dund boo ko dindee ci moom itam xamal ne sobe la mu ne ne gàllaaj la bu mu tax nga def ko gàllaaj ndax kon doo ko mën a julliwaale te it sobe sañees koo gàllaajoo ba tey it boo doon dóor ak ganaar mbaa nga di ko ñoddi rek far lupp ba soqiku itam lupp ba soqiku lupp boobee doo ko mën a lekk ba dara ndax ma nga bàyyi ko ci luy dund wala boo doon dóor lu mel ne am xar mbaaw bëy mbaa nag ab morso dagg ca rot morso boobee lu mu rëy rëy dooñ daa koy lekk mbaa daa koy def nenn sobe dong la sànni rek ca des bu dee nag loo xam ne bu dee dund boo koy dindi ci moom du ko yëg mel ne booy jàpp ganaar dongu ndaw yi nga xam ne mooy ruuf ci say loxo wala boog nga xam ne bu dee lu am kawar mel ni xar wala bëy mën ngaa dem daal di jël ab siso siso kawar ga te du ko yëg du metti lu mel noonu moom lu laab la boo ko ci dindee mën koo jëfandikoo mën ngaa wat rek kawarug lu am kawar te fekk muy dund daal di koy jëfandikoo lépp loo ci xam ne bu dee dund boo ko dee dindi du metti rek soo ko ci dindee mën koo jëfandikoo nga ñëw ci medd mi medd mi nee nañ la lu am deret ju sotti ko rek bu xasee medd sobe la xamal ne kon loo ci dindee moo xam tànk baa moo xam yax baa moo xam béjjën baa moo xam wewaa yooyu yëpp sobe lay doon waaye nag la nga xam ne ba muy dund boo ko ci dindi woon du metti ci moom mel ne kawar gi ma la wax léegi boo ko doon xuuf ba tey ba dee borom dungu dungu yu sew ya nga xam ne ba muy dund boo ko doon jàpp mu jekki-jekki ruus taq la te du metti ba tey mën nga koo jëfandikoo waaye nag dungu ya nga xam ne moo sax ci deru yaram wa wala bu dee borom kawar gi la sax ci deru yaram wa bu ko see medd moom léegi sobe lay doon ndax ba muy dund boo ko doon dindi muy metti kon nag nga jàppale ne bu ñu nee nangam moom meddam laab na ni ki lu amul deret ji sottiku kon la bàyyi ko ci moom ba tey laab na wala banul maytati ak soowu medd wa muharramil akli ak lu araama la lekk kal xinsiir mel ni mbaam xuux wal ataani mbaam wa bawlul jàllaalati ak sawum jàllaala war a jiixuha ak aw neefareem waxeete moom jàllaala kullu xayawaanin moo di wépp ndundat yastaamilu woo dee jëfandikoo an najaasata sobe nee na buñ ne nangam bu meddee sobe la xamal ne kon soow mooy bàyyi ko ci moom it sobe lay doon li ki wax na ne lu am deret ju sotti bu rek bu xasee meddi sobe la xamal ne kon am soowam sobe lay doon ba tey lu araama lekk mel ni mbaam xoox wala wajanu mbaam muy mbaam yi nga xam ci kër gi wala fas ci li gën a wër ci yoonu Maalik yooyu yëpp dañoo araama lekk kon seenum soow seenum soow sobe lay doon ba tey loo xam ne dagan naa lekk waaye day jëfandikoo sobe ba tey loola am sawam sobe la neefareem sobe la mel ne ganaar ak jax ak janax ju ñuul min nañ leen ci jëfandikoo sobe kon na yooyu seenum saw sobe la seen xayta seen neefara sobe la bu dee nag loo xam ne dagan naa lekk te moom du lekk sobe nag ni ki lu mel ne xar ak bëy yi ak lu mel ne picc yi naaw yooyu moom wax nañ la ne la seenum saw ak seen xayta yépp laab na dañuy seet nag bu fekkee ne loola lañ ko miine daal moom mooy lekk sobe mel ne ganaar su fekkee gis nu ko mu lekk sobe itam dañuy jàpp ne lekk na ko rek àtte ne lay bàyyi ko ci moom sobe la bu dee loo xam nag moom xamuñu ci moom ak lekk sobe mel ne xar ak bëy ak picc yi naaw yooyu ba mu des tan tan moom gis nga ko muy lekk sobe muy medd li ëpp ci picc yi naaw yi ndaw yi daal moom duñu faral lekk sobe yi mel noonu seenum saw ak seen xayta dañuy jàpp ne laab na ba gis ñu jàkkaarloo ak ñoom ñu lekk sobe ba tey nag xarameeg bëy wi bu ne moom du lekk sobe waaye yow ci sa bopp yaa ko wëggee lu am sobe mbaa yaa ko xonte lu am sobe nag su boobaa kon xamal ne lay bàyyi ko ci moom ci saw baa xëy tayit sobe lay doon ndax xonte ga nga ko xontee tax baa wëggee ga nga ko wëggee wal bawul ak saw wala hadiratu ak ay doxantu mooy xayta minal aadami yi bàyyi ko ci doomi aadama xayra fadalaat ambiyaa yi ndare des it yonante yi ba tey doomi aadama am sawam sobe la ay xaytaam sobe la ba mu des ab yonante ab yonante moom lay bàyyi ko ci moom ci saw ak xayta moom du sobe lan ko xamee mooy yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon na ko doon naan am tuur ndoxam te taxul mu aaye ko amma fadalatul anbiyaay fa tahiratun bi iqraarihi sallallahu alayhi wa sallama min shurbi bawli wa min muharramil akli ak ci luñ araama la lekk wa makruhihi ak lu ñu siba ak lekkam kasabu yi ni ki nekk ment wala di indi ak till ba tey lépp lu araama lekk rek ni ki mbaam xuux wala mbaami kër yi wala fas ci yo li gën a wóor ci yoonu Maalik lu araama lekk lu ne rek xamal ne am sawam sobe la xaytaam sobe la ba tey lu ñu siba lekk mel ne wépp rabuy fàdd ni ki muus ak siiru ak till ak yi nga xam yépp ñuy fàdd rek xamal ne seenum saw sobe la seen xayta itam sobe la wal xayhum ak dëtti kese sobe la was sadiidu ak dëtti wànjar muy dëtti jaxasoo ak deret ba tey moom it sobe la wa dama ak deret almasfooxu jëri juñ fis minal aadami yi bàyyi ko ci doomi aadama aw xayrihi wala ludul moom aw xayrihi wala ludul moom ba tey deret juñ fis mooy ji nga xam ne bu ñu rendee rek mu tàmbalee sottiku mbaa bu ñu jamee rek mu daal sot mu daal tàmbalee sottiku ja nga xam ne kenn fisu ko moom ju baax la mooy ja nga xam ne booy dagg yàpp wi di ko dagg day nàcc mbaa booy dagg ab tengo mbaa deret ja ca xol ba mbaa ja ca gàddaama nga yooyu moom laab nañu mooy addamu xayrul masfoox waaye addamul masfoox moom mooy ji nga xam ne boo rendee rek mu tàmbalee sotti ko wala boo dee fees sax nga dem ba yàgg rek gis fi ngay fees mu tàmbalee nàcc loolu daa bokkoon ci deret rendi nga ñëw ba foofu rek yooyu yëpp nag moom sobe la wal xayu ak wàccu al mutaxayiru ma aji soppiku xan xaalati taxaami walis melaw ñam wa wàccu moo xam ne melatut na mel bañ koy lekk donte aggu ci xayta itam waaye moom daal soppi ko ne ci melatu nu melante bañ koy lekk ci ba ñu lekk ñam wa wàcc moomu sobe la kon boo wàcc woon tey amul la ca taq ci sa yaram mbaa ci sa yére na nga fexe bala ngaa julli nga tàggoog moom wal muskiru ak lépp luy aji màndal loo xam day màndal sobe la day jublu nag ci aji màndal di loo xam ne dafa nekk ndox muy liquide luy màndal nag mooy loo xam ne day yàq sam xel waaye dalay boole nga ànd akuk mbégte akuk sigré akuk maare noonu la sàngaray def liy wax doroom nag moom nga xam ne moom it dana yóbbu sam xel du tee nag mu bàyyi la ak say cër li nga xam ne moom la sàngara bàyyi say cër waaye moom day yàqu sa xel moom itam moom doroom li mu wuteeg sàngara nag mooy sàngara moom da ngay màndi sigré maare doroom nag moom doo sigré ka maare mel ne yàmbaa yu mel ne yooyu kooku jëmm ji laab na mën nga ko def ci sa poos julliwaale ko du wàññi dara ba tey mën nga caa faju te bu bañ a ëpp maanaam boo jëfandikoo loo xam ne yàq sa xel rek ba tey loolu dagan na am na nag loo xam ne moom dalay nelawloo nga xam ne moom ni mu yóbboo sam xel noonu lay yóbboo say cër doo xamati foo nekk doo tala màndeeka sigreeka maari dara te yóbbu xel mi yóbbaale cër yi lu ñuy wax daatoor dana koy def moom itam laab na mën nga koo def ci sa poos julliwaale ko ba tey boo ci dee faju mën nga caa fajoo lu tolloog lu la ciy jariñ te bañ laa lor nga xam ne kon sàngara moom lu ca dara tuuti tuuti araam na te itam sobe la te it des na gitan ka nga xam ne moo naan sàngara sax waaye yaar yi ma mujj wax moom muy dorog ak li nga xam ne dalay nelawloo tàggale la ak sam xel ak say cër ba nga mel ne ku faatu daanaka yooyu moom seen jëmm laab na mënees na leen a julliwaale te it jëfandikoo ci lu néew lu lay faj te du la lor ayut ci wax ji gën a wër ci yoonu maali yi ñuy sukkandikoo moo tax mu naa wa yatarattabu xalal muskili min xaysul iskaar talaasatu ahkaamin an najaasatu wal xaddu wa xurmatu taati l qalili kal kasiiri bi xilaafi l axirayni fa taahiraani wala xadda xala mustaamili cheyin minhuma wa innama yaxrumu minhuma ma attara fi lxaqli maa xadamil xadd kon dafa taxawan ci wala muskil ak aji màndal kal xamri ni ki sàngara kon sàngara mi nga xam ne moom day màndal sobe la lépp luy màndal rek xam ne ndox la xam ne boo ko naanee mu tàggal la ak sa sago jox la cawarte akuk maare guk sigré loolu sàngara la te day màndal amaana nga dégg nag yeneen njur yi wala bu dee jamono ji yees ji borom xam-xam yi ubbee ci makaaku mel noonu ñuy wax lu wuuteeg li ñu wax ci mbirum dorog ak yooyu ndax xalaat yi nga xam ne moo ci am rawante na jamono ji yàqoo dafa bari moo tax waaye daal ñi la ko yoonu maali moom attee wal mën yu ak mën yu mën yu sobe la mën yu moom bu bàyyi ko woon ci lu dagan a lekk it ni ki xar ak bëy ak nag ak gëléem it du tee mën yu moomu mook masiw ak wëdd yu yi muy bëgg a wax yépp bu bàyyi ko ci lu dagan a lekk itam du ko tee doon sobe rawante ne mu bàyyi koo ci nit nag moom lay bëgg a wax waxuwa moom min rajuli bu tukkee ci góor maawun am ndox la ab yadu muy aji weex saxiinun muy aji tal tal mooy far rek bi mu tal la sëtin ci lu ñu tomb ñetti tomb ay li mu ci namm xaliitun aji tal mooy far yetta da faqu dana ji ñu fii xuroo ji ci génnam nga raihatuhu xetam nga ka raihati tal yi mi ngi mel ni xetuk tóor tóoru tàndarma bil xayin ci xayin nga awil xaa i wala xaalonk nga al muhmala tey ni yadi ñu neenal wa qaribun ci aji jege la min raihatil